kii di safoo télévision Kër Ndaanaan TV dal leen ak ñu dëgtal leen xibaar doore kook affaire usmaan Sonko nga xam ne dañ ko jiiñ ne dafa violé seen as ndaw bu tudd Adji Sarr loolee nag ëlëm ci ñu bari ci askan wi ba tax na sax waa assemblée nationale fas ne nañu muri maaraanu kirlaayu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nekk fi tamit député loolee nag tax ba ñu bari tamit di sàkku yoon def liggéeyam ngir ñu xam fa dëgg gi féete. ñu teewlu jàngat gi nga xam ne rédaction bu Kër Ndaanaan TV defal na leen ko. mu mel ni jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci wàllu politique rawatina fii ci Sénégal ngi gën di wëy lii gën a fës nag ci actualité bi doon problème bi nga xam ne moo fi bëggoon nekk njiitu réew di Ousmane Sonko mu am la nga xam ne dañ ko koy tuumaal ne dafa si xeex benn xale bu jigéen bu tudd aji Sarr moom Adji Sarr nag jàpp ne kii di Ousmane Sonko daf ko daal di violé maanaam dafa yegg ci kawam ci lu mu àndul loolee nag nekk ay problème ya nga xam ne askan wi yëpp jaaxal na leen ëlëb na bopp askan wi yëpp tamit ba tax na kii nga xam ne mooy honorable député Ousmane Sonko ñi di assemblée nationale ñu ngi saytu li nga xam ne moo war a dindi mbalaanu kiir laayam waaye ñi di farandoo Ousmane Sonko jàpp ne lii complot la ba nga xam ne nguur gi moo ko teg te kii njaag nag di Macky di njiitu réew mi jàpp nañ ne moom moo nekk ci bopp li nga xam ne moom lañ tuddee complot ba na ay ñoñam nag ñoom parce que néew ñoo dellu ginnaaw ci xeex bi moom Ousmane sonkoo nag jàpp na ne dañ koy tuumal ay tuumala yu ñu teg ci li nga xam ne mooy kawam mais loolee yëpp dara amu ci li des ba des mooy yoon nag moom fas yéene naa jël dossier bi en te nag dina si ngir leeral boppu askan wi bëri na ña nga xam ne ñu ngi leen di tudd ci lii di scandale bi waaye ñoom ñee nag ku si nekk weddi nga li des ba des mooy yoon daal di def liggéeyam ñu xam fan la dëgg gi féetee. ba léegi ci wàllu xibaar association bi nga xam ne nag mu ëmb ancien atletes du département bu Rufisque ñoom nag def nañ jéego bu mucc ayib maanaam def ab ndimbal ba nga xam ne dañ ko jagleel atletes yi nga xam ne ñoo nekk fële ca saltige ci xayma nag loolu mu ngi toll ci juróom-benni téeméeri junni ci suñuy koppar ñu teewlu reportage bi nga xam ne defal nañ leen ko. kuréel gi ëmb athlète yu département bu indil nañ seen ndimbal. ñi nga xam ne ñoo ne fële ca club bu saltige di yëngu ci wàllum athlétisme lu ci mel ni ay blouson ay gourde yaa nga xam ne dañ koy mën a jëfandikoo ci xayma loolu toll ci juróom-benn téeméeri junni. bi ñu doon def euh, c'est pour un peu continuer li nga xamante ne moom la ñu la ñu la ñu la ñu euh, débuté parce que ku ne xam na ne les trois AR ay anciens athlètes la dajale ñoo xamante ne dañ doon def athlétisme ci ay conditions quand même yu xawoon metti donc euh, bi ñu demee ba toog la ñu gis ne jot na tey ñu dajaloo nekk benn vraiment jël suñu suñu xam-xam suñu am-am boole ko mën a jàppale athlètes yi nga xamante ne tey ñoo nekk en compétition pour que li nga xamante ne ñun daloon nañu démb ak barka démb mu bañ leen dal parce que ku ne xam na ni dañ daan am problème mu maillot daan nañ am problème mu dàll daan nañ am sax problème mu transport pour dem compétir mais li mu doon métti métti yëpp dañ doon ànd ak suñu dirigeant di surmonter méttit yooyu fexe ba ne mi compétition yàlla dogal na ñu toog nag ñu gis athlètes yoo xam ne xalaat nañ ni ñi am nañu avenir si athlétisme ñu ne pourquoi pas ne pas les aider donc loolu mu nekk nag objectif boo xamante ne moom la ñu dëgmal ñu gis ne organiser woon nañ fii cross bu mag cross de masse boo xam ne dafa dajale athlète Tëngéej yëpp département bi yëpp ak Dakar athlète yëpp ba Thiès sax athlète yëpp ñëwoon nañ donc ñu def benn cross de masse ñu ne woon bu ñu jógee ci loolu si la ñuy commencé nag vraiment jàppale athlètes yi dëggantaan donc Euh, lii mu nekk action boo xam ne du ma ne premier action la mais deuxième la ndax sànq Ndeye Kumba wax na ko am na bourse yoo xamante ne décroché nañ ko vraiment si autorité yi loolu yëpp pour en pour les athlètes en compétition la. boobule kuréel fas newul yem foofu ci ndimbal googee rek ndax am na yeneen activité yaa nga xam ne ñoo ngi aspiré def ko loole yëpp ngir gën a jàppal ñi nga xam ne ñooy def sport fii ci département bu Rufisque. Euh, kontaan nañ torop waaye nag euh, peccum liir bu neexee ndey jàpp ci loxoom. vraiment tey aussi euh, 3AR mu ngi remercier mu muy association des anciens athlètes boobu nga xamante ne ku mel ni El Hadj mu ngi fa di fa def euh, lu mel ni social bu mel nii tey euh, donc mun nañ ñun dafa bokk ci suñu ay idole si moom sax lañu ñu xoolee xanaa mën nañ wax ni gis nañ ak social yi muy def lu mel ni ci la dëkke defu ko sax rek ci atlete yi man dafa am benn acte boo xamante ne daf ma daf ma frappé ba léegi ci moom yàggul dara dañu ànd ak moom dem Mbour mu doon dem di yóbbu di dimbali benn école boo xamante ne e- directeur école ba du gis ña fay jàngee ay ñu muuma lañ ñu mënul dox ak ñu dul gis ndekete depuis dix ans mu ngi koy def donc kooku du sport bu kese sax lay dimbali donc dañu bëgg wane ne daal ñun de waa Tëngéej nekkuñu social pour. sport bi rek képp koo xam ne mën nañ ko dimbali dinañ ko dimbali donc franchement parler ñun tam ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm. association anciens athlètes nag yu département bu Rufisque ñu ngi sàkku ci autorités yi ñu ñëw dugal seen loxo bu baax ci wàllu athlétisme rawatina jàppale club bi nga xam ne mooy saltige. ku wax 14 février wax Saint-Valentin Saint-Valentin nag ñu bari ci askan wi di ko dund rawatina ñi nga xam ne nag ñooy dund lii di mbëggeel. loole nag tax ba rédaction bu Kër Ndaanaan TV daal di leen defal ab doxab seetlu ñu teewlu Vox Pop bi nga xam ne kii di Binta Ndong ànd si ak Pape Mor Ndiaye ak Fodé Wade ñoo ko daal di def. février bi bon vraiment à journée des des amoureux gis nii si euh, kanamu cantine bi ak euh, kaddu yu yi ma bëgg a waajal sa sama soxna ah vraiment c'est pour euh, le faire euh, euh, plaisir quand même pour wane que mbëggeel gi ma am ci moom ah mbëggeel gu profond la ah, vraiment sa vie ki koy partagel ah vraiment loo ko mën a bégal da koy jar. gën a xomb ndax affaire yi moom Covid moom teew ñu feetu quoi ñu ngi koy waajal comme niñ ko war a waajalee xam nga. di ko préparer bu baax di waajal cadeau yi di waajal bagage yi waaw pour le moment moom ñu ngi koy waajal moom bu baax sax waa cadeau yi gën a fees euh, ren waa gel yi jël nañ ay nuisettes nañ ay nuisettes ay ay panier ay montre comme ça tu vois montre yi ay cadeau la am nañ aussi tamit ay fer rouge noir ay njeganaay love rouge noir am na ay sër aussi yooyu aussi tamit gel yi jël nañ ko aussi ren leen mën a wax ci Saint-Valentin de bari na lool ndax euh, feetu bëggante la te je pense que bëggante moom pour mu neex foog néeg bi xeej neex ñaan ñi fa nekk ku ci ne waajal sa bopp ci anam yi nga xam ne moo leen di jëmale kanam xam nga àdduna moom bi mu sosoo ba léegi bëggante fii dañ ko fekk te xam naa ne du fi jog bu ñuy deewee dañ ko fiy bàyyiwaale donc kon je pense que ne li am solo rek mooy ñu nangu ne feebar ñëw na mais bu mu ñu stressé quoi ñun ñuy bëggante chaque jour rek li nga xam ne moo ñu war ñu teg ko ci yoon quoi maanaam kenn ku ci ne satisfaire sa partenaire ci li nga xam ne daf koy bégal parce que ku bàyyi ndeyam ak baayam moom je pense que ceeb ak diwliñ kese indiw ko kër ga quoi donc kon nag satisfaction yi moom yii ñuy jaay nii daf koy neexal quoi donte nag euh, lu ci bokk la mais li ci ëpp solo rek mooy ñu bàyyi xel ne feebar bi moom lu ñu yàlla teg la ñuy ñaan yàlla mu jëlee ko fi quoi. tey bi ñu ngi koy préparé bu baax a baax a baax xam ne dèjà fi nekk nii moom weeru mbëggeel la waaw yëpp ngi fii quoi parce que fi mu ne nii préparation bi muy ñu ngi si daal waaw mois bii moom mois bëgge bëggeel la quoi waaw. tey lay gën a dàq sax ñi xooluñu si xoolatuñu ay couvre-feu bi xoolatuñu corona bi fi nekk ni moom dañuy ñëw rek waaw dañuy gën a bëggee si lay gën a dàqee sax waaw loolu moom am na. te partagé a ah, vraiment loo ko mën a bëggal da koy jar donc nag euh, moment bi doon na moment de. Euh, de s'unir dans une symbiose de cœur et d'esprit, en même temps d'offrir euh, des cadeaux à, à ta belle euh, femme, à ma belle femme. <laughs> boo xoolee maa ngi ci devant la boutique pour euh, jënd sama cadeau bi nga xam ne moom laa koy waajal pour offrir ko waaye. ñu ngi fi sapin yaa ngi fi chocolat yaa ngi fi tu vois comme ça yi ay sapin la pour Saint-Valentin xam nga gis nga yi ay ay cadeau la. yi aussi noonu pétales de rose yi pour décorer seen néegi yi waa aussi tamit xam nga am nañ ay parfum yoo xam dañ koy def comme ay emballage cadeau waa ça dépend quoi waa ñu ngi yëngu ci yëpp daal. xam nga on a tendance au Sénégal que jàpp nañ ne Saint-Valentin bu ñëwee rek rouge noir la mais tey li nga xam ne moom la jigéen ñi gën a bëgg pétales de rose yi si la bokk. pose-pieds yu rouge noir yi si la bokk donc en grosso modo ñu koy résumé daal dañ leen di xamal ne la steering yeeg bagage yu baree ngi ci bagage yi mais li ci ëpp solo rek mooy li nga xam ne tey euh, sa jëkkër dina bëgg sa jabar bëgg donc kon satisfaction daal la ñuy wër ci seen valentin jigéen ñi yëpp lañ bëgg donc nag ñu ci gën a soxla daal fi ñu toll nii mooy ñu ngi wax xaar xale yu jigéen ñi kenn ku ci ne mbir mi fii la pharmacie cuuraay gaynde rek lañ jaayul daal ki rasulullaay ñu ngi lay jaajëfal maa bëgg yéen wax ji bu baree man la jëf ji bu rafetee yéen la ci kaw ci kanam bëggee. xale yu jigéen ñi fi mu nekk nii moom li ñu gën a bëgg moom mooy nuisette yeeg et cetera ak sër yi génn na waaw yooyu yëpp mu ngi si biir waaw. am na cuuraay jooy jooy fajar am na am na kaay joggi ma waaw am na nema nenga nengal am na yëpp am na fi quoi waaw loo waaw rek am na fi. jërëjëf mbokk yi li moo fi ruusoon ci ay xibaar ñu di leen di daje ëllëg ci yeneen xibaar fii ci Kër Ndaanaan TV